Wow waouh, imaginez on imaginez on mais pas moment bi parce que moment bi daf ma bett genre waouh, bon dañ don joué commencé quoi genre bi Coupe d'Afrique bi dañu joué match euh, contre l'ISPA, par la suite coach convoqué euh, pour euh, Mali mais malheureusement suma papier pareil. par la suite après ñu bàyyi bët si man bu bii jotee ñu oo ma taxaw naa quoi genre ma loolu laa gëm Bargny fii moom am na potentiel extra extraordinaire ba seet ak ba seet naa ñoom màgg naa ñoom de quoi ils sont capables mais juste il faut ñu gëm seen bopp xam tout est possible bon côté autorité ñi ngi ñaan xam nga ñu gën a xel basket bi waaw parce que basket tey turu Bargny ma soo nee fii doo ko xam mais soo génnee man mi suma ma fuma né suma né su né wa Bargny ay gëré ya fa né autorité autorité dañu wara a xel lool ñoo jappalé basket bu baax ah waaw ah, ah. public bi nag moom waaw dañu war a ñoo supporter match yi comme ni ñu demee nii ñëw supporter gars yi encouragé leen comme ça gën am jom gën a am fulla waaw gën a reyante si terrain yi incha allah.